réew mi quotidien ak yeneen yéenekaay yépp tey xëy dikk ci génnuk àdduna Alioune Badara Cissé ci xalima Assane Samba yéenekaay bii di xam ne ni kon république bu Sénégal ci boppam moo ñàkk ab antisystème ci ñetteelu xët réew mi quotidien ba tey njiitu réew mi Macky Sall Ousmane Sonko xalifa Babacar Sall ba ci maître Sidiki Kaba daanaka géopolitique bi yépp kàddu gi benn la ku ci nekk di indi témoignage ci dayoo kii di ABC sañ-sañam ak dëggu gi mu am ak nit ki nga xamante ne ku moo tax Sud Quotidien di ko ci naan Alioune Badara Cissé moom daf fii des ba faw yéeni kay groupe Sud Communication bi ci boppam di xam ne ni kon APR ak géopolitique bu Sénégal ñoo ñàkk ab nit ñi nga xamante ne dafa bëri yoon conviction moom ABC di noppalu ca sëgg yu nekk ca Touba Walf Quotidien waxaat ci ki nga xamante ne yàgg na di gunge Macky Sall ak témoignage yi nga xamante ne kon indi nañ ko ci ñoom ABC nga xamante ne dafa moomoon boppam moo tax Walf Quotidien di kaat ak ABC jaar jaram ci ndorteel ga ba keroog ba muy Alioune Badara Cissé ne fang ci xët bu njëkk yéenekaay bi di l'observateur ambassadeur la ko tuddee suñu naataango yi dañu nettali ni kon dundu médiateur de la république ba woon ci xeex la ko defee dëgg mu ñuy nettali tamit feebaram bi nga xamante ne moo ko dab te daanaka kenn yëgu ko woon ba keroog ba ñu koy évacuer ci hôpital principal bu ndakaaru laata askan wi di ko gunge ca fa ñu ko denc ca Touba mu nekk kon aw tiis bu ñu sukkandikoo ci L'As Quotidien mu ñuy xam ne ni kon Sénégal wërngal këpp mooy jooy kii di médiateur am ci biir delloo njukkal naka noone opposition bi wërngal këpp Sénégal wërngal këpp nangul ko ko moo tax enquête yéen kay jàpp ni kon ab kàngam dëgg muy ikon moom moo dëddu àdduna enquête defal ñu naataalu Alioune Badara Cissé ci ñeenteelu xëtam taftal ci ab commentaire bi xam ne ni kon dëgg la amoon na xalaat yi nga xamante ne yenn saay ñu teeg yu njiitu réew mi Macky Sall waaye nekkuloon benn yoon hypocrite lii quotidien mel ni ku koy dëggal ndax yéene kaa bi dafa xam ne ni moom Alioune Badara Cissé nekkoon na ki moom boppam maanaam liberté doon dem ba jeex ci li ñu doon xaar ci moom moo tax Le Soleil yéene kay xam na ni kon ba Badara Cissé jeexal na lépp li nga xamante ne santoon nañ ko muy régulateur bi nga xamante ne moom la doonoon le quotidien national bi di kat ci li nga xamante ne mooy témoignage yi ci Ndakaaru ca Ndargeej ba ca Touba bi nga xamante ne foofu lañ ko denc le quotidien yéene kay li muy xamle ci moom mooy ABC lettre capitale la mu nekkoon kon ku am maanaa ci réewam di Sénégal leneen lu am maanaa wàllu wërgu yaram la réew mi quotidien di kat ak ñun ci li nga xamante ne moom la ñuy jëm jëm muy ay comprimés yi nga xamante léegi askan wi mën cee jot ngir daal di fagarlu wala sax faju ci mbasum covid 19 bi yéenekaay bi di xam ne ni kon yooyu le garab léegi ñu daal di koy am ci pharmacie yi nekk ci àdduna warawatina ci Sénégal ñi ko war a bind nag di ay médecin waaye ñooñee jar nañoo moytu ndax tey l'observateur dafa xëy di ñu xamal ne am na ñaar ci ñoom ñi nga xamante ne kon ay coréen lañu dañu leen teg loxo ca diwaanu Mbuur ndax dañu doon def liggéeyu médecine te teguñu ko ci yoon li ñu tegul ci yoon mooy mbënn mi ca Kër Massar noonee la ko jëwriñ ji di Abdoulaye Sow daa di xamle moom mi ñu dénk wàllub urbanisme ci laas yéenekaay di xam ni faaw ñu càmbar gàkk-gàkk yooye fu mu bawoo ngir yoon mën a def liggéeyam Touba di wéy di def liggéeyam ngir waajal màggal bi ci Vox Populi ñu fësal kàddu yi nga xamante ne moo tukkee ci Serigne Bass Abdoul Khadre mu ciy xam ne ni kon ala kulli ali moom màggal bi dinañ ko amal ci ni mbaa ci naa L'Observateur dikkaat na tamit ci dogal yooye nga xam ne xalif général des mourides na ko ne kon màggal gi dina am ndax matukaay yépp ko jël ngir fagarlu ci mbasum covid 19 bi te aar ci bu baax ñii di taalibe yi ca Touba sax lu tollu ci juróom fukki million la kilifay jël ngir daal di wàllu ji ñi nga xamante ni ñoom noonu loru ci mbënn mi yéenekaay bi di foo di ñu xamal ni Touba moom jël na ci dogal ba noppi te lépp dina am ci anam yu jaar yoon ñi wutali tugal te duñu ko def ci anam yu jaar yoon tax na ba beneen jéeya amati ndax lu toll ci ñeent fukk ak benn doomu aadama ba tey ñoo réer may gannaaw seen gaal ba mu suuxee ci waaxub ndar géej yi libération juróom-ñeenti doomu aadama yi nga ne mujj nañoo rëcc ci yëf yi ay néew yi nga de sauvetage ana nan la ñuy def ba sowe Souleymane Boubay Maïga Dakar Times dikkaat ci njàkkare gi nga xamante ne ay jegeñaale premier ministre ba woon am nañ ko ci ndax dañoo jàpp ni boo mayul dinañ ko faat ca prison bi ñu ko denc moo tax ñu ci artu jëmale ko ci communauté internationale bi wàllu tàggat yaram ak Edouard Mendy bi ñëpp naan gongo ki ñu tabu bu yàggul dara ni kon meilleur gardien européen samedi gi wane na boppam ndax moo sowe Chelsea ba ñu daal di am match nul seen diggante ak Liverpool bu Sadio Mané stade yéenekaay moo ni xamle yéenekaay bi dikkaat tamit ci jaar-jaaru suñu gayndey but choqueur yi nga xamante ne ci ñeenteelu place coupe du monde bi la ñu mujj suñu lamb jaar-jaaru Yékini diggante 1997 ba 2016 la dikkaat wax ci jaloore ji nga xamante ne njiital écurie Ndakaaru ba woon na def na ko ci géewub lamb ji société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon seen revue de presse